asalaamaaleykum patriote ziar naa leen nuyu naa leen. Naby Vision Sozane xaw ma noo tudd. ñàkk danga laan suus nag moo tax sa tur bi jóge foofu gis nga yow juróoñu jëndooñu sa ginnaaw nee nañu moomooñu te nag naa la waxal loo xamul la woon woon ñu na toog ci palaat du Ousmane Sonko lu la neex amatul. daana dégg nag ñu naa jur mu dee mooy yara dal déedéet jur mu la léegi faju dara mooy yara dal mooy yow. yow fojoo dara fojoo gàcc yow doo yàpp doo jën doo yéet doo xëcc géej jalata na ci bool kon yow loo doon dara yow doo ci Papa te fii loo fi bax dañu koy ñeer yow Ousmane Sonko mooy kan mooy ki xam ne dàllam dàllam laa la moo gën sa ndey gën sa baay mooy ki la raw dem na ñàkku na sax yaa ko mag waaye raw na la moom ndawam dakaa concentré si réewam xeexal réewam ba am ci ndam alhamdulilah ñëpp dañuy ñaan yàlla doom yu mel ni yow moom yow nag mënoo ko am ndax yow doo bàyyi ju mel ni papaam kon yow xam nga munoo ko am te doo ko am sax nag. ndax yow baaxul yow ku bon nga sa xol bee ñuul xolu iblis nga yere yow yéeféer nga waaye na xola yow doo ci papa Ndiaye lijjantiwuñ la faalewuñ la. dawuñ saala yaay ndeer Ousmane Sonko dangeen koy bàyyi Ousmane Sonko dana naa gën moo la ñu métti xam nga journaliste bi dala laaj na danga tiit mooy yeey wax la ko dangaa tiit ku ñu jiñ dëmb fekk mu sa ci yoonu gone <laughs> ah saa waay foog nga tiit di foog nga tiit nu mu la ñu taraakee nii ngeen jël seen ala bi na ko nii ah delloo leen ko ku nekk di def nii di fël-fëli lu ngeen def fi ngeen dugal suñu xaalis bi da ngeen kaa sàcc du ngeen nalaw Ousmane Sonko da leen a tere nelaw de xaalis réew mii da ngeen ko delloo mu la ñu neex mu la ñu naqadi ngeen di jooy ngeen di ree ngeen di dem toile di tuur dara di ma ne bu ngeen doon sukaraat sukaraat ba des dernier mois sax dañ la ñuy laaj suñu xaalis réew mi du ngeen ko yóbbu. Naby fii ku fi sàcc deux cent mille trois cent mille ñu topp la. ah yéen ngeen sàcc suñu milliard duñ leen topp yéen kat vous êtes yéen yéenay kan ah yéen du ngeen fi dara nga defal sa kanam gi di mel ni xaritu kudd sa bakkan bu rëy bi di mel ni bàmmeelu mbër ah nga defar sa lexi mel ni kàppale nga ñëw fi nga ne yaa ngi am looy expliquer sa bëti sa yooyu na riiti nga ñëw di am looy wax yow yow tu nous emmerdes on s'en fout de toi nga naan nii ah yow yow yaay kan Ousmane Sonko moo leen gën yow nga xamante tekk woo dara doo nitu dara yow do wax lu bax do def lu bax musuma gis loba waxe lu bax sa Ousmane Sonko top Ousmane Sonko Ousmane Sonko bi nga ñu tok de mbaj mbaj diko top diko di mo topp mu ngi la ñu lijjë mu ngi lijjëndi réew mi nan lay baxé du sen morom dem na lijjëndi réew mi nan lay baxé mu ngi liggéey mu ngi di liggéey ngeen tok ci plateau di mbaj mbaj amulen ben valeur amulen personality personnalité amulen kali dignité xale yu juddu tay sax nawlawuñ len ndax sen wax du bon ndax sen jëf yu bon kenn nawlawu leen du physique du moral du dara du am personnalité ci yeen ñen ñu fi di am lu ñu li lijjanti wuñ len Ousmane Sonko <laughs> ndayam ba mu yeewoo fajar Sen nday yi mané ñi ngi nalaw ñom ñi ngi xan xaral ñom di nalaw sen yaam juk ci fajar liggey waaw kay nday ju baax moy jur dom ju baax may dañ suñ jàmm mënu len ko dab de du ngeen ko dab ala yow tur du nekk ci Ousmane Sénégal bi ku len ci dugal waye mom bosam

man faalewuma kenn kuy sénégalais lijjantiwuma kenn kuy sénégalais xam nga tey jii li ngay def nii ah bu nekkoon gaañ dañ ko defoon si régime mu Macky Sall xam nga gaañ dañ daan dem sa kër fekk la fa dóor la ba ngay bëgg a dee taal sa xam nga noonu lañ daan def waaye régime mu Ousmane Sonko bii régime mu Bassirou Diomaye Faye bii ñoom du ñu def loolu patriote yi ñoom duñu la dóor de. dañ lay dof loo sa bopp bi lañuy lañuy la ñuy kattakay ne xam nga booboo gën a metti waa léegi lu ko fi jar li ngay def nii yow pour yow lan la pour dañ dangaa ngi créer buzz nii ko li ngay def nii pour yow buzz li lii du bës lii ñàkk fay dal ak waye di ak matadi ndax yow Ousmane Sonko boo ko xoolee ñu xool la teg la yow fobeerekaay lañ lay teg Naby Vision fobeerekaay lañ lay def Ousmane Sonko di yek se kaw di jàll ndax au moins bu waxe askanu senegal ñu deglu ko yo nak boo waxe askanu Sénégal kenn du la déglu kenn du la deglu ndax apporté wo dara ci kanamu sénégalais yi ndariñ dara ci kanamu sénégalais wa li mo la neex nga tok ñuy daggal sa nday di la dila di la di la wax wax ci ñaaw mo la gënal fukki yon ak juroom ñaar mo la gënal ah ay ca dem ci patriote yi moom ñu ngi nii moom ñoom de moom sama waay boo laalee suñu patron bi ñu jóg sa kaw ñoom boo laalee suñu patron Bassirou fay Faye Ousmane Sonko ñu jóg sa kaw duñ la may dara patriote yi dañoo bokk ndey bokk bàyyi mhm. waxuma ñi ñi nga xamante duñu patriote de ñi patriote yi laa wax dañoo bokk ndey bokk bàyyi dañuy solidarité war a déggoo loolu yow nag xoolaatal sa bopp te nga gëm yàlla yàlla moo teg Ousmane ko fii ba Bassirou Diomaye fa yàlla moo ko fi teg ak population sénégalais yi nga xamante ne ñoo bëggoon changement yéen ñi nekk nag si réseau yi di wax suuraale leen de ku sa kër takk kenn taalu ko ne yaa ko taal ku sa doom ñu kidnappé kenn kidnappé ko yow la kuñ ci dóor ba gaañ la kenn gaañoo kenn gaañoo kenn sa bopp rek nga gaañ donc na bàyyi leen seen yi ñàkk fay de ngeen def bëgg bëss bëgg siw warul mëna tax ngeen def seen affaire yi nit da ngay honnête nit da ngay gëm sa bop nabi Vision. li ngay def ni ci kanam Ousmane Sonko ni mu bayila la waxu la dara c'est parce que amul sa jot xol leneen sa bakkan yow mi bul fàtte bul fàtte mu ëlëk du anju reer waaye lu mat sedd la gis nga Ousmane Sonko mi ngay top naan mom du moy kan mom du dara du gëna fi genn fi suralel sóoraale ëlëk ndog dina mësa ñëw jafe-jafe dina mësa ñëw problème dina mësa am kenn dula taxaw luru askanu Sénégal kenn dula taxaw luru Ousmane Sonko président bi bul bul faté nit ki lo mer mer mer andal ak sa xel té yow jamono ji andok sa xel yaangi def ma tay te li ngay def ni ma tay ni defoko kenn sa bop kessé nga koy def ndax nag yow yaay amel Ousmane Sonko àq waaye du Ousmane Sonko moo lay amel àq de amelu la àq du Bassirou Diomaye Faye moo la amel àq de yow yaa ko ameel àq ndax ñoom xamuñu la xamaañu la musuñoo dugg say wax xamuñu yaay kan xamuñu kuy sa ndey xamuñu kuy sa baay du dégg lu amaana sax musuñu loo seetaan wala buñ la mësee seetaan musuñoo wax ci yow waaye yow gouvernement bi fi nekk nii mooy yaay may ma ñeex waaye gouvernement firawna muy Macky Sall mom mo nek euh, gouvernement bi nga xamantene gouvernement safara la kenn du yeungu kenn du wax waye nak patriote duñ la may dara de mhm. ndax ñom am nañ jom am nañ ful am nañ fayda gem nañ seen bop mom ñom patriote yi ndax tay ji sa waye di ak sa ñak gem yalla ak sa ñak wóolu yalla mo waral ngay top comporté di jadd jadd ci télé yi di rëj rëj ci radio yi légui nak Ousmane Sonko bu la portone plainte rek nga commencé ñaar ji jënd glace hmm hmm nga commencé jënd glace ñu né ah Ousmane Sonko day fayé ko fekk Ousmane Sonko fayé ko du question boko ko defee fayu mais il faut que mu tégg la ci yoon pour xamal na lay amo droit di harceler nit amo droit di def ni waye Ousmane Sonko jamono ji talu len mom xamal la la tal dossier yi nekk ci comptable bi naka lañ mëna def ba régler moitié bi beneen moitié bi ñu jox ko Ousmane Sonko Bassirou Bassirou Diomaye Faye moo nekk nii bu reglee dossiers yi ba pare beneen moitié bi ñu jox ko Ousmane Sonko loolu la tal pour ñu jéem a avancer dëkk bi bor yi nga xamante ne amee nañ ko ñu fay ko waaye yéen nii li ngeen nekkee ci réseaux sociaux bi nii ngeen yaakaar ne li dëgg la fadam la xawma lu mu doon xëtër xëtër xëtër ah xam moom it temps yi moom hmm. régler moo gën ci moom de ndax sama waay 72 heures yi ko li ko gaa yi bàyyi xaw ma 72 heures xaw ma lu ko patriote yi bàyyi yéé weñ bu ci jàpp dee ragal leen yàlla nag te ngeen te ngeen xam ne ki fi nekk yàlla moo ko samp du kenn ku ko samp ku dul suñu borom kese moo ko samp yàlla ko seppi ci biir gor ña waaw xam nga waa kër Macky Sall dañu yaakaar ñoom ay gor lañ def ne xoolal basir jomay fa dañ ko seppi ci bi gor ñi dugal ko ci bi gor de goma dañ ko seppi ci bi gor ña dugal ko ci bi gor ñi waaw ñi ak mom te ñom xam nañ ne karma ñoko ragal leen yalla basir jomay fay musul sacc musul wax lu ñaaw musul jëf lu ñaaw Ousmane Sonko musul sacc musul wax lu ñaaw musul jëf lu ñaaw deug rek la fi nekké wa bu nekkee seen xol yi te ngeen gor ñaa ngi fi de xam nga ñan la muy population sénégalais yi ñooñu ñooy gor population sénégalais ñooñu ñooy gor ñooñu ñoo bëgg seen réew moo war waral ñu seppi us ki yi nga xamante ne mooy Ousmane Sonko daal di ko ne hé yow lañ bëgg jiite ñu. Naby Vision te fu mu toll moo ñu jiite nag mooy premier ministre génn ci li nga ne.